dañ ci ànd ak El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah accident yi doorati nañu dee le populaire ne mbëkkante camion këriñ la ak benn bus allahu akbar ca booru Kaffrine la am na ci ay doomu aadama yoo xam ne kon seen yaram ya dañoo dakkate deret ja bari lool nag teg ca musiba mbaaba kumba boo tax na ba benn sapeur pompier kon daa yenn loxo yooyu yuuxu le populaire ak direct info ne ñaar fukki doom aadama ak ñeent ñàkk nañ ca seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah tribune yéene kaay ne ñaar fukki doomu aadama ak ñeent président Macky Sall day am na lu ko metti lool ba jaale na kon njabootug ñi nga xam ne kon ñoo loru la ci musiba mbaaba kumba boobee waaye président Macky Sall yamu ca son excellence parce que nee na nañu respecté li tali bi kon santaane di code de la route ba tribune yéene kay ne Mbaye Ndiaye ministre de l'intérieur ma nga woon ca hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass ca diwaanu Kaolack gee di seeti kon ñi nga xam ne kon ñoom ñoo ca lori la waaye Mbaye na dàqul sax ngir daal ñu xalaat ci daal tukki daal par guddi tukki guddi daal wóorul daal doxuma ci li xew yéene kay ne nañ leen bàyyi nit kon saa su la 24 heures kaay ne accident yi nag tax ñu door addu dara lu dul xamadi ngamadi goo xam ne kon ni mi kun nañu ko indiscipline ñàkk yar ba maara deytaali waaye yit yenn ci ay oto yoo xam ne kon dara baaxu ca l'observateur ne safaru bis ba doon nelaw i maa la wax lii ñi nga xam ne nag ñoo ñàkk seen bakkan goo gee bintu taal CBAO gii la doon liggéeyee moog yaayam di faatu demba ka ñoom de ci ndakaaru gii la ñu jógee ginnaaw bañ fi ñëwoon kon di jaale si allahu akbar buubu wañ étudiant la ci université musiba mbaaba kumba boo bee ah. benn tàntaay ministre Aly Ngouille Ndiaye bokk na ca ñaar ci ay professeur yu doon dem ca Tambacounda ngir examen bac ba bokk nañu ca benn kilifa diine jabaram ak ay doomam bokk nañu ca am na benn sapor pompier woo xam ni ba muy génnee nit ña daal génnee waale kon yaay ja te xamul woon ne kon waa juróom wu jigéen moo mais bokkoon na ca Mbagnick Sarr bokk ci ñi nga xam ni kon dañoo rëcc ca accident ba nee na musiba mbaaba kumba bi am na ci ñenn ñoo xam ni seeni cër moo dagg di ay tànk wala boog ay loxo dagg complètement am na ci ñenn ñoo xam ne amatuñ woon ay nopp seen nopp yaa dagg ak ñoo xam ne seeni butit ñoo génn nii di direeku kon ca kaw suuf sa allahu akbar allahu akbar te jamono ji ñuy nettali kon lu miti lool lée lu miti nag mi ngi yoot kon baykat yaa Aliou Dia direct info ne béyub ren mii yées la nar a def de mais jokor la nar a def ci atum ren mi la dee jafe-jafe kon amatina enquête yéen a kaay ne mais fan la Macky sàll mi la jëm ah wàllum daf yëngal geeg làmbatu gi nga xam ni kon moom la ñu limi ko ci nguur gi fu Macky jëm problème am na dee dix mille problème ci yéen a kaay gi ne gouvernement non booy xool ba ci biir gouvernement Macky Sall bi day dolli sax kon problème askanug Sénégal gi lee déet waaye problème ah kay ma ne on en nañ taay nañ ci courant bi nga xam ne kon nu ngi coppe suba ngoon guddeeg bëccëg di xuy xuy xamaj-xamaj gouvernement Macky Sall bii nekkeewu fi kon lu dul di wàllum defante règlement de compte règlement de compte nag am na seenu biir parce que defante libération yéene kay ne jàppal bàyyi liñ seen biir waa assise ndomba tànk ci bopp parti bii di APR waaye ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall waa Macky 2012 ah xas nañu waa assise nationale yi ba maara di taali màggat ngom ne la may sàkku ci waa assise nationale yoo jee mooy ñu ànd ak dal ànd ak modestie te dafa doy sëkk nag saa si fii lan mooy ndeyu ñu naan Macky Sall na tekki ndomba tànkam ci bopp APR naan nit mënul jiite réew mi ba pare xaw ma jiite parti ah Macky Sall dañ falul woon ci ay waawu assise nationale ay tànkam ah le quotidien yéene kaay jafe-jafe ba amoon te ñaari Aminata Gaye yëpp voté kon ci élection Moustapha Niass ba Aminata Gaye bu janvier 81 kon la juddu ñaari Aminata Gaye yëpp voté nañu kon te Moustapha Niass Moustapha Niass moom mais ah l'observateur nee na est-ce que kon falam googee baax na parce que téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn kon ci ay nit ñoo ko voteel ci kaw Omar Sarr waaye ca ñoo ñee am na ca koo xam ne voté na te warul woon a beneen Aminata Gaye ba la professeur de lii du yoon ah. dañoo war a nii lal bureau ba ca boppam di élection Moustapha Niass ba Babacar Gaye yor kàddu PDS ne léegi kay il faut Macky Sall bindaat beneen kayit rek di ab décret ngir ñu sampaat kon assemblée nationale professeur Babacar Gaye ci l'observateur ba tey ne mën nañ caa bañ a yegg de ah. lënt lënt daal buñ ko ci nimikoo te lu ca mënte am nag mënul woon a yàq résultat boobee mën nañ jàpp ne erreur am na waaye njureef di résultat ya mën na faa des de ah. parce que indiwu ci génn ngaañte benn nit kese la te soxna soo see ñu ne voté na ca ba ca ñoom la far mbir ma jaar ñoo wax ne légitimul waaye nag la mu voté moodul yoon légalité maa la wax lii kéemaane na fa kéemtaan am kay ah le quotidien nee na mooy inspecteur généraux d'état yi ñoom daal ñooy doomu buur yi ci république bi ah seen salaire yi ci boppam la ñu yokku ba ci seen njiit la di Nafi Ngom Keïta Ndour te Abdoulaye Wade dafa jaar tey xaalis xaalis yëngal na kon république boobu ñu sukkandikoo ci tribune yéene na nañu xam nga laataa koor gee ñëw ah Sénégal daal boo sàgganoon ñu ne kon gaz dana fi manqué njiital itox Baba Diaw daal di sàkku ci nguur gi ngir ñu fay ko kon ab xaalisam doon yéexantu daal premier ministre bi ci boppam daal di sàkku ci ministre économie ak finance ne ko jéemal indi kon ay saafara ci ñàkkub gaz bi ñuy yoot njiital Touba Oil di Cheikh Mbacke Seye ne d'accordul ci li ñu jël gaz bi rek jox benn nit gaa mujj koo tasaare loolee nag mitti ñoom Baba Jaw lool ba ñenn sax wax ne Abdoul Mbaye premier ministre kat dañ koo ger boo méridien président ah laas ne Mamadou Racine si day war naa sant yàlla ah ñi koy jàppalee nga gën a bëri ndax liggéeykat ya nekk ca biir hôtel ba King Fahd Palace googe fare ak INSAS nee nañu kon Mamadou Racine si la ñuy jàppalee Omar Lo njiital FRC ci Le Pays au quotidien ne nguur gi daal bu bëggee kàttanal lu jëm ci wàllub ñurub affaire fii ci Sénégal gii dana gën a kàttanal taxaw jàppale secteur privé bi le waaye bañ fee nekk kon di ko xeex ak naan dañuy jéemal jàppale nasaraan yeeg waa bitim réew Omar Lo yemu ca ndaxte nee na Racine si mii dafa am ñu koy attaqué di ko xaar tas te Racine Sy kat lu ne def na ko ci réewam investir wutal ay nit yu bare bari ko liggéey mbëri dee am nañu liggéey dem na ca làmb ja suñu làmb ne bilan wu école de lutte Balla Gaye daan nañ leen ñaar fukki yoon ñu daan ñaar fukki yoon ak juróom ñett am ñaari mat si niil Balla Gaye da l'homme du 22 oh oh fiiraange baaxul l'office yéene kaay ne mbir maa nga xewee ca Tambacounda ndaw si ñaareel la xarjatu jàllo waaw moom daal day fiire jëkkër ji ba maara day taali di tuumaal tamit jëkkër ji ne day bëggante yeneenu soxna jëkkër ja Ousmane Ngom la tudd ñoom ñaar am nañu ñaari doom coroom waaye Ousmane Ngom moom bee benn bis daal la yegg si ca kër ga guddi ñaareel ba jàpp ne daal ca coroom la la jóge Karjatu Jàllo tamit làqatu ca ginnaaw bàyyi ba Ousmane Ngom te jibuntu ba rek ñaareel ba ne bëre daal di koy mbëkk ca bopp rel rang rangit mu yéen rang mbëkk laa la wax teel Ousmane Ngom di jëkkër ja ñaari bañ yéeni ras daal di kon wadd allahu akbar <laughs> cay fii range alaaji jom yoo mbëkk sa jëkkër ba ay ñaari bañam rot pooseel ko ko ñaareel liggéey lii balaa may dee ñu naan waaw ñaareel xaritu jëkkëram waaw mën daal riir ba duma lekk yow fii riir yow maa la wax lii waaw te gis nga wujju neexul ah su ma koy wax sax sama ñaari tuñ duñ laalante wujju oh maa ngi bàyyi ba nit ne ma oh su ma amulee ñeent moom jëm kaw du ma régler de loolu moom bu yeboo samay mbokk samay dëkkandoo teel koo xam alaaji yow waaye yow sax fàtte woon naa ne waxoon nga ma sa bopp bu yàgg-yàgg ne ma dootoo takk kon boog tëjal